الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا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 والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما حلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم السلام عليكم mbokk jullit yi ñu ngi am mbégte bu baax ci bés bii nga xamante ne bésu feet la bés fête julli di yépp yàlla nañ ci yàlla delloo si wat ay at yu bare bare bare bés bi nag ñun imaam yi ñu koy ànd ak yéen ki nekk ci bopp bi di cheikh Thierno mu mbokk yëpp ngànt moo tax ñëwul boo wax waaye ba léegi rek mu ngi jokkoo di xool bés bi nan lañ koy tërale nan lañ koy waxtaane macha allah xelam dañul ci mu ngi ñaan mu ngi yëg ñaan yu mu ngi sant yàlla bu baax mbokk yi bu ñu tolloo dañuy sant yàlla ci xéewal bi mu ñu may ci stabilité bi mu def ci réew mi ci jàmm ji mu def ci réew mi ci kafante gi mu def ci réew mi ci kal loolu moom laa tuddee dëkk yu bari ñu ngi ci ñee Sénégal ba ko waxee ñu ne Sénégal réewu teraanga la dëkku teraanga la waaye mbokk yi ndax jàmm jooju le ndax dal boobu le ndax bennoo boobu le dañu koy bàyyi mu nax saay déedéet waruñu ko bàyyi mu nax saay mbokk yi ta li koy nax saayal nag mooy bu ñu jëmbat lépp loo xamante ne mën na jur fitna lu mel ni noonoo lu mel ni bañante iññaanante ëppalante ku ëpp daraja sa morom wan ko ko wala nga ne ah kii day man maa ko gën a yey ci nangam kii day maa ko fitee ak ah, kii day maa ko ëpp alal kii day maa ko ëpp daraja yu demee noonu bu amee rek lan mooy ñëw mooy jaxase ay diggante mooy rambaajante wax lu dul dëgg te loolu yal ci yàlla musal mbokk yi yal nañu ci musal ba nga xamante ne kenn doo gis sa bopp ci dara loolu ñu yàlla may ci réew mi ba ñëpp bëgg ko loolu nañu ko mbokk yi nañ ko sauvegarder nañuy bàyyi xel événement yi di xew bu mu ñu emporté lool waaye nañu xam ne am na xéewal bu ñu yàlla defal waaye bu ñu yàlla joxee pétrole jox ñu jama jox ñu or jox ñu jox ñu li mu ñu jox yépp mais te amuñu jàmm mbokk yi est-ce que danañ ko tal est-ce que danañ ko jariñoo kon loolu dootul amati njariñ kon nañu fexe ba jàmm ji fi am nañu ko sauvegarder mbokk yi nañu ko inculquer ci xale yi bu baax wax leen ne dëkk bi dëkku jàmm la dëkku demlante la dëkku dimbalinte la dëkku solidarité la dëkku social la mbokk yi loolu nañu ko fësal nañu ko sàmm bu baax bu ñu ko defee yàlla mën nañu dimbali mbokk yi soxna yi nañu góorgóorlu bu baax mooy ñaareelu tomb bi ci xutba bi topp seen borom kër taxaw si yar yi taxawu bu baax sàmmuy fu ñu mën a dem di yëngatu jigéen kenn du ko tere mu yëngatu waaye fu mu dem rek na xam ne moom am na responsabilité bu tegu ci loosam bu kawe lool ndax jigéen mooy yar jigéen mooy defar ab société kon nag ñoom it nañu góorgóorlu bu baax waaye ñun ñi nga xamante ne ñooy seen i càmm it nañu leen sàmmal bu baax seen honneur fu ñu mën na daje ak ñoom ci bërëbu liggéeyu yi fu mu man a doon nañu leen jox seen cër nañu leen jox seen wàccuwaay nañu leen yëkki képp koo xam ne gis nañ ne kii kat walla wi daf ci néew doole muy soxna nañu ko jàppale bu baax nañu ko soutenir mu yëg ne ay càmmañam jàppale nañ ko bu boobaa mu mën a sàmm boppam mën a sàmm diineem mën a sàmm ngorom defee bu dellusee si këram dana xamne mom kat amna lu ko war ta dana ci taxaw inshallah allah tombe bi ci ndaw ñi nañu lu ndaw ñi yene amé avenir u ndax mom la tudd ci hadith yi may wax ci biir suñu borom nga ñu wax ne amul kenn kuy ñëw ëllëg yowmal mal xiyaama duñ la laaj sa ndaw ci lan nga ko passé fo jeexale sa ndaw wér gu yaram gi la yàlla joxal ndax def na ko ci lu neex yàlla wa wala dé nga ne alhamdullilah def na ko ci lu neex yàlla sant yàlla bu baax ci loolu kon ndaw ñi war na góorgóorlu xam ne mooy yaakaaru réew mi ëllëg moo war a taxaw taxawaayu wéy juri ëllëg kon moom warul sànq ndawam ci jëfandikoo aw ñool la ci xeetu ñool la yépp bu ñu mel ñool la ci xale yu ndaw yi mooy waa xeetu drogue yi rek nga moytu na ko bépp ñool la boo xamante ne nii jigéen la nga sori ko képp koy jëfandikoo yi nga xam nan ngay jëflante ak moom parce que loolu daf lay yàqal sa sa diine daf lay yàqal sa ngor waaye dafay yàq société bu baax ku ne gis na réew yi ni mu mel ويدم لا يجرمنكم شنآن قوم ألا ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى بنيب أم نمو أن تدف صفان يو فحل بصفان بسي دف مو بلن لنيب دف لولو لا يدف ديرين نغن قرقو رنغن سام تحمن لي نو تكنا مويدا يالا لمرد تكنا كوني ألا كل حال دن اكتتيين كون ننو أن أحضيلو نحيرن تبي صلى الله عليه وسلم نين القراءة كنز لا يفنى doylu trésor la budul jeex boo amee doylu ku la gis dana ki kii jeexalul dara ki ñàkkul dara waaye la yàlla xam doylu na daf lay gis ngay dem rek mais sa force sa richesse mooy lan mooy sa doylu al qanaatu kamzun la yafna mbokk yi lu waay yor si teraan na nga ko ñaanal na nga ko yéene loolu mu sax ci moom waaye yow na nga doyloo li nga am boo ko defee rek incha allah yàlla du la fàtte wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbuhu képp ku jël sa mbir yépp jooyal ko yàlla na ko yàlla maa ngi nii bàyyi naa sama mbir ci yow waaye boo waree xëy xëy soo waree sàkku bi dara sàkku ji ko nag waaye a izza avec dignité nag doo def mukk lu sa diine bëggul lu sa ngor bëggul lu askan wi bëggul loo man di sàkku foo mën a dem yen ñep gis ngeen aduna tentation yi bari na fu ne danañ la fi jima xëc na la yoon yi moy raccourci bi mo gëna gaaw li day boko defé ëlëk doto dootoo ñàkk sa lépp dina baax waye est ce jaar jar na ko laaj bobu toujours xale yi day leen ko laaj est ce jaar jar na ko wala jaru déedéet jaru nañu andax ndor ngor nañu de sax suñu diine gor gor lu baax yàlla na yàlla defal sutura mbokk yi delo si ay at yu bare bare bare bare te di leen ma sha allah li ñuy wax jamono bu ne rek ñun imaam yi seeni surga lañu seeni jaam lañu da ngeen ñu doyloo rek waaye borom xam-xam yi ñooy yéen da ngeen yaakaar rek waaye ñii yàlla di xool di leen nangul wallahi gëm naa ne ci mbooloo mi ci yéen kon su ko defee ñun li ñu wax mooy ñu gën góorgóorlu waaye di leen dénk suñu bopp yi képp koo xam ne gis nga wala dégg nga nemmeeku nga loo xam ne lii day ñii ñu wax ci imaam yi commençant par ki di wax ah lii de bu ko defoon mooy gën bu leen hésité benn yoon parce que nit fu mu nekk rek mooy seet mooy nattuwaay mooy ambassadeur ñi nga xamante ne ñoom la bàyyi ginnaaw seen image la yor bu tilimalee rek tilimale na ñëpp kon nag il faut que ñu nekk benn di diisoo di waxtaan waaye di laayante biir kuntum xayra umma uxrijat linnaas lan moo ñu ko may ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna anil munkar di digli lu baax di tere safaan ñu ngi jaajëfal ñëpp di ndokkeel ñëpp macha allah bu ñu sañoon bu ñu génnee fii wallahi kenn na ku si ne danañ waaxu bés sa biir kër saafuwante ak yow ndokkeelante ak yow te loolu yàlla rek ñu ngi ko koy seedeel ne loolu moo ne ci yéene yi loolu moo ne ci xol yi ndax jigéen ñu loolu waaye xat-xati jamono waaye doo mën a matale lépp nga ne jamono bi neexul su ko defee masque yi macha allah jaañ rek mu may fàttali waaye comme wax ji mooy tax takkuma masque bi waaye jël nañ matuwaay yëpp yàlla nañu yàlla defal tawfeex su ko defee ñu góorgóorlu ci bu baax loolu mooy tax ziarante bi ci ñenn ñu ñuy jéggal bu baax a baax waaye loolu mooy yéene bi ñu ngi leen di baalu àq encore di leen jaajëf di jaajëf ñu yore organisation bi ñi nga xamante ne jamono bu ne depuis at wala mu ngi sori ñoo nekk ci porte yi toujours ñu ngi yor chaîne yi ñu ngi yor gilet du àjjuma rek de du it bii rek de waaye waxtu julloo julli juróom bu ne ñu ngi relevante di taxaw ngir yéwénal bërëb bi ñooñu yàlla na leen yàlla fayal ñooñu yàlla na leen yàlla fayal taxaw nañ ba mbooloo dem nañ ba miin loolu daanaka du jarati ngay ñëw sax di sonn sonn ba nga doon def koo leen mbooloo mi fa jazakumullahu xayran kon mbas bu amee ci àddina moytu nga ko rek moo moo war kon nag góorgóorlu moytu nga ko bu baax su ko defee yàlla defal ñu tawfiq kon xale leen di jaajëfal bu baax ñoom ngay gis jamono bu ne ñooy yore organisation bi ànd seex mag mag ñi sax léegi dañuy noppalatu gis ngeen bi ñu ñëw ñoom ñooy accompagner imam di leen jàppale di seen taxawaay yàlla leen yàlla fay seen taxawaay bu baax ñu ngi jaajëfal ñëpp waaye suñu mbokk yi nekk Palestine nañu leen di ñaanal nañu leen di jàppale jàppale bi mooy ñaanal leen wax naa démbale ci tafsir bi ku si nekk yaa ngi naan ci suuf Palestine ci suuf Palestine naam nañu leen jàppale waaye tamit man nga ko nekk ci anam yu bari parce que ku si ne na nga xool ka nga fiiteel ka nga dendeel am na ku néew doole am na ku ñu néewal doole ci réew mi am na ku ñu jël alalam ëpp kay pexe ëpp kay kàttan mais ce que taxaw nag est-ce bala nga laa lax jaay na nga lax le kon fële bërëb la boo xamante ne nii lu màgg la te incha allahu rabbi su fat ba suba bu àjjuma bi danañ ci ñëw spécialement jagleel ko bërëb boobale mu xam bërëb boobu mooy lan ci diine l'islam waaye daal nañ leen ñaanal yàlla defal leen tawfiq bu baax képp koo xamante ne man nga wax loola deñ na nga wax ku ko mënul na nga mettitlu ba si ñaan yooyu yëpp yàlla dimbali leen taxaw leen réew mi yàlla fi yàlla doole jàmm yàlla fi yàlla doole sutura bu baax kilifa yi yàlla jàppale leen képp koo xamante ne am na responsabilité bu tegu ci kaw fu mu mën a toll ci station yi nga mën a moo xam ci kër gi la ci quartier bi ci gox bi ci réew mi ci àddina bi yàlla la yàlla jàppale bu baax yàlla yàlla defal ñëpp sutura yàlla defal dem wër bu yaram defal ñu sutura bu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullah ñu def fatiha salaat al fatiha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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جل جل جل